jërë ngeen jëf mbokk yéen na di yàlla Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafet lu ñu ngeen di toppee suñu seen bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey seen acte du jour dañ koy doore ak coowal divorce euh, ci ki nga xamante ne moom moo di sumbulu ak Abdoulaye Diop Khass coow la nag daal di nay bëri euh, ku ca nekk rek di ca yëy yàbbi waaye nag mu mel ni euh, kii di Abdoulaye Diop Khass génnoon na sax di wax rek naan couple yu ne ñoom ñooy daal di am rek jafe-jafe naam sax kii di Soumboulou dem na seen kër waaye divorce amul problème rek moom moo daal di am information boobu nag ki ko joxe woon sax wax ne dañoo daal di divorcé di Adji Mass moom nag mu xarit ci Soumboulou Bathily waaye nag mu mel ni ba mu toogee rek ci ab plateau de télévision daal di wax li ni mel loolu nag daal di nay tax sax ba ca nekk rek di defi commentaire di dal ci kawam ngir rek ni mu nekkee xarit ci Soumboulou waaye nag mu mel ni Soumboulou mi ndayu mbili ji tamit daal di génn rek di wax sax Adji Mass naan ko yónniwu ko benn yoon te xamul woon ne loolu mooy jikkoom dina rek toog ci télé di vilipande li nga xamante ne moom moo di dundam rek bay wax ci coowal divorce am loolu nag daal di métti lool. ka nga xamante ne ah, moom moo di Soumboulou Bathily ah, ca kàddu ya nga xamante ne ah, kii di Adji Mass dina koy génne ca beneen divorce la ñuy wax même famille sax laay wax gannaaw Soumboulou Bathily Boury Bathily tamit ab rumeur mu ngay circuler rek ñuy wax sax naan divorce na ak ka nga xamante ne moom moo di Balla Gaye 2 loolu nag nekk loo xamante ni sax yenn ci ay site internet ñu ngay joxe bii les information ci diggante Boury li ak Balla Gaye 2 ñuy wax sax naan ñoom tamit dañoo daal di tàggoo ñu daal di wax ci mariage bu Adja national Seri Adja moom nag amu bëri ay soppe lool ci li nga xamante ne moom moo di internet bi amoom Adja nag mu mel ni daal di nay marié rek en toute discrétion loolu nag nekk information boo xamante ni bu wér la rek moom Adja jamono ji nag daal di nay rek am borom kër. beneen rumeur bu doon circuler jëm rek ci mariage bu soxna Aïda Diallo ak kii di Diop Sy député maire bu Tivaouane mu mel ni nag coow loolu rëyoon na lool ku ca nekk rek di waxtaan kii di Diop Sy dafa daal di jël soxna rek soxna Aïda Diallo waaye nag moom Diop Sy mi ndayu mbili moom moo daal di def rek ab communiqué et démentir li ni mel ca la nga xamante ni sax ab rumeur la woon rek ku ca nekk di ci yëy yàbbi rek naan kii di Diop Sy dafa dal di jël soxna kii di soxna Diallo ñu daal di wax ci leneen Fatou Kiné ñu gën ko ràññee rek ci série yi nga xamante ne mooy daw ci télévision yi moom Fatou Kiné nag mu nekk koo xamante ni sax actrice bu kenn dootul présenté fii ci Sénégal mën loolu li muy def rek moom la ñuy gis noonu rek ci beneen facette publier ay photom rek avec sa beauté noire toute belle moom Fatou Kiné ñu daal di wax ci Viviane mu ngi nekk ci pleine répétition loolu a waajal canal Olympia foofa ca réewum France ci ca nekk rek mu ngay dugal loxoom ci ba bokk na ci ay artistes invités ak sax ni sax ay surprise lañ ko daal di mën a jàppee rek ñu nga nekk ci seenub répétition rek di waajal seenub événement audio fuité bu wayjur bu jigéen bu njàpp danseur bu Sidi Diop mu mel ni nag audio boobu ku ca nekk rek mu nga koy partagé gannaaw nag njàpp teewoon foofa ca diwaanu Italie daal di fay defoon sax. ab diir ba ku ca nekk rek naan dafa daw jamono jooju nag fekk na kii di waajuram bu jigéen envoyé woon ko ab audio rek ngir sax mu daal di toog rek ca réew ma liggéey waaye nag audio boobu mu mel ni daal di fuité rek ñu nga koy partagé loolu nag daal di métti loolu ka nga xamante ne moom moo di Adamo nag ca audio boobu nga xamante ne daal di nay rek jëm ci conversation bi nga xamante ne njàpp daal di na koy séqoon rek ak waajuram bu jigéen bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci Moustapha Naam ak kii di Virginie ñoom nag gannaaw seen mariage ñu ngay wéy rek di dund seenu mbégte Moustapha Naam nag am mbégte mu baax a baax rek daal di publier rek di wax sax naan il est conscient d'avoir ki nga xamante ne moom moo di Virginie comme femme loolu nag daal di nekk loo xamante ni ab publication bu mu def la rek waaye tamit di fësal rek chance ba nga xamante ni sax daal dina koy rek am nekk ak ka nga xamante ne moom moo di Virginie muy rek nekk. ab mbëggeel goo xamante ni sax xam ngay dox rek seen diggante ba mariage daal di cay lalu rek xanaa di leen ñaanal rek yàlla defal leen jàmm ci seen sëy ci sëyu Virginie boobu sax la ñuy des ba tey rek ki nga xamante sax xarit la ci moom di Fatel madame Ngaka Blende mu mel ni nag mu ngay jox rek ay conseil xaritam di Virginie di ko wax rek naan ko sëy ba dee la ko daal di sant moom Virginie nag daal di am rek soutien ña nga xamante ni sax ñoom la daal di maaseel rek mu nekk ay xaritam. waral nag ah, ku ca nekk rek ah, di ko ah, félicité waaye tamit di ko joxi conseil rek ci ménage am bu wees bi Guigui Sarr la ñuy gis noonu très belle très bien habillée aussi en noir moom Guigui nag di séduire ñi nga xamante ne moom moo di internautes yi rek à travers ces belles photos gannaaw nag mu daal di nekk sax koo xamante ni raaroon lool waaye waaye nag fësaat na ak yeneen cliché yoo xamante ni sax dal na koy fësal ci ay kontam ci keneen la ñuy wax kuy séduire Louza lay wuyoo nag ca page Instagram am daal ci publier rek ay photo am moom Adiouza nekk koo xamante ni tamit bëri na ay soppe tamit mu daal di effacé wu lool ca la nga xamante ni sax moom moo di internet bi mu mel ni nag daal dinay fës rek publier ay foto am ci compte Instagram ñu daal di wax ci divorce Mia ak Nofees gannaaw nag coow la nga xamante ne mu ngi doon circuler ni ki démb ba tey rek ci sax ñoom ñaara dañoo delluwaat am. Guèye mu mel nag kii di Mia daal nay joxe rek ab explication ci li ni delluwaat sax amul gannaaw nag ñetti yoon yoo xamante ni sax dal nañ koy divorce rek waaye nag ka ni sax moo di Nofees am rek droit di gis doomam bu jigéen loolu nag gannaaw ba nga xamante ni sax ay image yu daal di génn rek ku ca nekk jàpp ne ñoom ñaax dañoo delluwaat waaye nag réconciliation boobu ba léegi amul ci diggante Mia ak Nofees nit doof daal nañ koy yóbbu ca prison ba gannaaw. ginnaaw ñu daal di koy teg loxo rek mu mel ni nag yoon daal dinay mujj def liggéeyam rek ci li ni mel ba noppi rek yóbbu rappeur bi di am Mortalla Gueye alias Nit Dof foofa ca prison ba ñu daal di wax ca oustaz Modou Fall Proxaan gi nga xamante ni sax ñu ngi koy waajal ni ki ñaari fan ci weeru février moom nag demoon na ca dëkk ba waaye nag daja fak xalifa général des Mourides muy Serigne Mountakha ci loolu nag ñoom ñaax ñu daal rek am ay photo yu rafet yoo xamante ni ah, daal dinañ koy fësal rek ci internet bi moom Modou Fall nag ñëwoon rek ah, ziyaare ji xalif bu tedd bi ah, foofu rek ca diwaanu Poroxaan nga xamante ni ñu ngay waajal rek màggal ga nga xamante ne ñu ngi ko fas yéene amal ni ki ñaari fan ci weeru février Clara triste nouvelle madame Doro Gueye daal dinay ñàkk rek juróom bu góor moom nag Clara ñu daal di koy ràññee bu baax borom raf xóot daal dinay rek ñàkk ka nga xamante ne moom moo di waajuram bu góor loolu nag xanaa di ko ñaanal rek yàlla yërëm ko te xare ko aljana ci beneenub décès la ñuy wax groupe Ramdan daal dinañuy am rek ab triste nouvelle loolu nag gannaaw ki nga xamante Ndiaye di batteur ci Wally Balago Seck moom moo daal di ñàkk rek soxnaam loolu nag daal di nekk une triste nouvelle boo xamante ne daal nay dal rek ci groupe Ramdan gannaaw nag génnup àdduna soxna ki nga xamante ne moom moo di Cheikh ante Ndiaye xanaa di ko ñaana rek yàlla yéexam ko te xare ko aljana ñu daal di wax ci leneen Yacine Diop basketteuse internationale daal di nay dellusiwaat rek ci la nga xamante ni sax mu ngi koy def carrière mag na mu koy. suivre waaye nag ab question boo xamante ni day faral di delsi rek ci mode d'habillement moom Yacine Diop mu mel ni nag daal dina cay tontu lu simple rek ca ña nga xamante ni sax ñu ngay critiquer rek solom mu nekk loo xamante ni rek style bu mu daal di adopté la kon nag ñi nga xamante ni sax ñu ngay critiquer rek bii le habillement moom Yacine Diop nag daal na ci andi ab tontu bu simple rek di wane ne a style boo xamante ni la def ko daal di adopté Guy Marius Sagna daal dinay wax rek nag ci Mimi Touré mi nga xamante ni sax ñakk na postam député foofa ci assemblée nationale ñeel quatorzième législature loolu nag ñoom ñëpp daal di koy ñaawlu rek ñu jàpp ne sax loxol Macky Sall moom moo ci daal di nekk rek gannaaw ba nga xamante ni sax mbirum troisième mandat bokk na ci lu Mimi Touré doon kaas rek waral nag moom a ñu daal di rek tekki ndombal a ñeel député foofa ci assemblée nationale diwaanu Louga la ñu daal di jëm ab camion moom moo daal di chargé canette ba fees del canette yooyu nag canette alcoolisée la camion ba nag ba mu daal di daanoo rek ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ca wet ga au lieu ñu daal di ñëw rek dimbali chauffeur ba waaye ñoom nag dañoo jubali rek ca canette alcoolisée ya jaawale kook canette sucrée daal di cay naan mu mel ni nag ñoom ñëpp daal di tërëf rek mandi ba mënatuñoo sax dimbali chauffeur ba nga xamante ni sax moom moo daal di këpp ak kamion ba kii nag daal dinay def rek lu toll ci dix-huit ans de mariage waaye nag mu mel ni boroom këram di wuyoo ci monsieur Guèye daf ko daal di rek sonal di ko dóor guddeeg bëccëg di ko métital bi yoon nag ay coowal écouteur sax moom moo leen daal di jotele rek waral moom jëkkër ja daal di koy dóor ba damm baaram ba roqee nag lay wuyoo gannaaw nag mu daal di métitlu li ni mel. moom soxna si daal dinay yóbbu rek jëkkëram ca yoon ba ñu daan ko juróom benn weeri kaso. jeexalee wàllum tàggat yaram Bamba Dieng daal dinay rek jógee ca olympique bu Marseille ñu koy xaar rek ca moom nag gannaaw visite médicale ba nga xamante ah, fas yéene na ko fa doomu Sénégal bi nag ah, jubali ah, foofa ca FC Lorient ngir àggali rek bi les saison mbokk yi safoon doon ñu teewlu lii lañ leen andi loon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax ngeen abonné suñu chaîne bi te laal notification bañ a dara suñu information jërë ngeen jëf